dénk nañu la ñi gis ne yow la nga waroon def defuloo ko wala boog nanga ko waroon defee defee ko noonu wala boog pire que ça da def loo warta def mais je pense que c'est très normal à que ñu woo leen moom laa Diop ak keneen ku mu mënti doon gis nga Sénégal fi mu toll nii li ñu soxla xam mooy lan mooy suñu koppar gi ñu leen joxoon pendant douze ans man je ne parle même pas li xew démb ak barki démb mais pendant ces douze dernières années là bépp jiixi njaaxa boo xamante ni gis nañ ko ci wàllum gestion nañu ko génne teg ko sur la table jox ko aux autorités compétentes ñoom itam ñu def ci liggéey bi ci war maintenant coow li nag dina bëri parce que politiquement ku ci nekk dangay bëgg a jàpp ci dara naan non gars yi dañ ma bëgg a xoxatal parce que gis nañu ne législatif yaa ngi ñëw bëgg nañ ñii bëgg nañ naa mais man dama gëm ba gëm ni fi ma toog nii li nga xamante ni mooy reddition des comptes amul dara ak politique. Lat bu ñu ko woowee na dem wuy ji. d'accord waxtaan ak ña nga xamante ni la war a waxtaanal bu amee ay lay yu muy indi mu teg ko parce que nag la ma wax sànq rek pôle judiciaire financière moom du topp kenn ci naan la noo ay nii la demee neen demee ci ay preuve yu leer nañ. ci ay charges yu leer la ñuy teg sur la table. maintenant nag bu ñëwee ak layal ka tax dina indi ay leeral bu indi ay leeral nag bu fekkee ni effectivement il a convaincu que liñ koy toppee defu ci dara mm-hmm. xayru. très bien te en tout cas cohérence uh-huh. ak objectivité dafa baax si doomu aadama xam nga Moustapha jaxate dafa naan déglu ngeen ko yéen ñëpp mm-hmm. dañu li njëkk a wax bu ñu leen wooyee bu leen dem mm-hmm. bu leen dem mm-hmm. Moustapha Diakhaté mi wax loolu lan la njëkkoon a wax ni loolu la meree woon Ousmane Sonko ci lim ne wuyu jiw ma justice effectivement xam nga loolu ci lim ne woon li Ousmane Sonko nee na ni woon wuyu jiw ma justice nee na ci la mere woon ci la mere woon Ousmane Sonko te yaa taxaw ni ay nit bu ñu leen wooyee bu leen dem ana cohérence et objectivité gis nga yàlla moo ay ci póotum buur da ngay weer ba ngay jàpp ni fenn na mu taw ci kawam mhm. xam nga loolu li mu bëgg a wundi mooy tey boo xoolee lañ doon def yépp dafa mel ni lu répercuté wu dal seen kaw mhm. fii ngeen barricade nit joxu leen ko benn notification mhm. ngeen xëy indi convocation ne da ngeen koy convoqué mu am immunité parlementaire loi bi protégé ngeen ne da ngeen koy yóbbu ngeen xëy beneen beneen événement maanaam événement yi fi am yépp la ko sabab lépp événement marché yeeg yépp tout ça ñoom ñoo créer les conditions parce que bu ñu tegoon mbir mi si yoon amaana dootuñu woon egg egg foofu tey situation bii tey pôle judiciaire financier bi am na ñu koy xarab si ñoom te pourtant ñoom ñoo ko créer yi ñoom ñoo ko indi élection yi ñu euh, lii xew assemblée nationale kana ko indi lépp ñoo ma ñoo falsifié règlement bi premier ministre ne daw ma si règlement bu bon mm. dissolution assemblée nationale ma Sall ko def deux ans mm. kon amul dara lu fi gars yi créé lépp lu luñ ci fekk la. jàpp ne financier bi tamit ñoo ko mettre en place. moom laa wax ni léegi pôle judiciaire financier bi. ñoom ñoo ko teg te Macky bi muy évoqué euh, pour daaneel si trente trente secondes. Mm-hmm. gis nga bi muy tas euh, bi mu naan tas na jël na kii pour créer pour kii euh, créer mm-hmm. plateau spécial la ma fekk télé wa. Mm-hmm. tu as ñaari motif la évoqué. lu lay wan ni dañ doon caaxaan dëgg. lii dañ ko defoon instrument rek pour neutraliser opposition bi. moo ne nee na yàgg nañ ko wax ni créer baaxul. Macky loolu la njëkk évoqué si motifs yi exposé des motifs yàgg nañ ma wax ni CREI baaxul moo tax ma bëgg ko coppi pour gën ko jox dayoo te pourtant experts yi gën a mag en matière de droit ne woon nañ la CREI bi baaxul te ko si suuf mais da nga def forcing pour normaliser te bàyyi woon na muy woy ay opposants politiques tey nag pôle judiciaire financier bi yaakaaroon nañu ni bu ñu demee élection yi dañ koy gagné parce que dinañ fexe ba neutraliser opposition bi fi nekkoon mhm. Sonko mi parce que ñii tey nekk Pastef ñoom ñoo ñëpp kuñ na ci woon kenn dana ci jàll nekk candidat nga weddi ko ba ñu ñoo ñi leen yoral seen kàddu muy Yérim ma jàmbal Diagne ñoom ñëpp waxoon nañ ni Pastef doo am candidat doon démontrer nag ni ci ay argument yu yu leer lañ ko leer teg ci ak xam-xam tey nag ñu leen ëpp xam-xam ñoo leen weddi muy conseil constitutionnel mm-hmm. ak ña nga xamante ni ñoo yoroon wàllum élection yi mm-hmm. kon lu dul yàlla neen la gis nga yéene bu baax en réalité dafa am solo mm-hmm. ci àdduna nag mën naa nag yéene bu ñu amoon pour neutraliser une partie de l'opposition tey loolu moom moo nekk di wëlbatiku di dal seen kaw. Mhm. merci pour les rappels Maty ñu des ci mbiru Lat ba tey waaye ñu fàttali ni dañ ko woolu itam en attendant ñuy euh, xam li nga xamante ni mooy euh, les éléments de l'audition. waaw ouais, c'est tout à fait normal juste pour conclure euh, li Serigne doon wax. Euh, Serigne à la table du karma y a pas de menu on ne reçoit que ce que l'on moom actuellement nii moom moo leen euh, topp di daal ndax euh, buur yàlla moo leen ëpp doole te won na leen ko gis naa nag temps yi xataraay yi commencé naa bëri mais euh, noonu la nag bu jëm seeraas moom noo def mu bari bëri bruit yi mm-hmm. mais euh, seulement que maman gis nga xam nga je pense que Serigne tu te rappelles Macky Sall il bi un sérieux problème pour que ses ministres et euh, kii DG dem def seen déclaration de patrimoine dafa doon topp di ci wax bay bëgg a dee mm-hmm. léegi nag li waroon tax ñoom xëy na buñ ko defoon tey lii nii yëpp duñ ko am mm. ndax avant ngay ñu lay dénk dara da ngay def sa déclaration de patrimoine wax ni lii nga am soo demee ba sa fonction bi ñu la jox mu jeex nga war a defaat sa déclaration de patrimoine ñu xam ne yow jóge nga ci fii ñëw ci fii nii ndax ak boobu diir bi nga doon liggéey li nga ci topp di fayeeku ak li avantage yi nga topp doon ko ci am ndax may na la nga war a mën a am nangam. Mm-hmm. mais ñoom ñëpp danga ko doon bañ léegi nag nanguwuñu woon def seen déclaration de patrimoine aujourd'hui ils sont rattrapés par le passé léegi nag comme woon nañ leen pour ñu dem wuyu ji parce que dañ leen confier woon la gestion des deniers publics nan dem ñu wuyu ji c'est la suite logique amul nekk fii ni ay je suis convoqué à la DIC je pars sain et sauf tout ce qui m'arrivera incombe leur responsabilité yooyu yëpp du ko fee jarul a convoqué parce que vous étiez autorité demal nga wuyu ji wax ak jox sa morom la ah leur parole contre la sienne mais comme li may wax rek convoqué wuñ maman convoqué wuñ sëriñ convoqué wuñ fari parce que ñun ay citoyen lambda lan hmm. te li ñuy liggéey foog naa ñu ngi ko teg ci yoon ba lu nu am xam na ni suñu situation fi ñu toll nii li lan war a am mais Sénégal ngay gis benn fonctionnaire d'état boo xamante ni da nga koy élire wala nga nommé ko sax laal poste nominatif à moins d'un an il se construit R plus 4 wala R plus 5 changer de logement ah. déjà point fi mu dëkkoon dafay jógee de un dem fi nga xamante ni mètre carré yi ça te coûte des millions et des millions benn terrain nu bi rek cent millions et quelques da la koy may nga tabax ko def ko R plus 4 wala R plus cinq wala immeuble R plus 8 mm. yor oto boo xamante ni c'est moins de 40 ah millions en un temps ah, si en un temps record mm-hmm. ba pare nag li may wax parfois am na yenn sénégalais yoo xam ne ñoom itam bañuñu ko leen sàcc waaye sàcc leen te doo leen sédd lan dul nangu. c'est-à-dire que tu peux voler des milliards mais yëkkatil benn cent mille wala benn deux cent mille nga jël ko di ko jox booy yi nekk ci koñ bi rek. su suñ la suñ waree wax waxu reddition des comptes ñu taxaw naan ay le boucliers de sangam wala ay les défenseurs d'un tel parce que ñoom jàpp na ni ñoom buñ leen xañee yow dañ lay xañ alors que ñoom lu nu yor buñ ko joxoon buñ ko defoon ci yow amaana doo soxla seen cent mille ak seen deux cent mille yooyu noonu mm-hmm. waaye sénégalais mooy ba pare nag ñenn ñi ñi gën a am fit wala comme ni may wax rek boole euh, maire yi nga xam ne yaay restauration alimentaire boo dee sàcc lu ñu lay wax sa liggéeyu ndey la ñun xamoon na ni boo juddoo boo màggee boo tekkee ñu doon doonu seetaan. ah oui c'est ça c'est comme si waaw ouais, mm. parce que dañuy cautionner dans la mesure où comme yaa ngi sàcc di leen séddale ñoom sàcc bi seen yoon nekku si. Mm. ndax boo waxee ñu ne ils sont tous pareils non non bu ñëpp yemoon day am ñu gédd seen cër. Mm. léegi nag comme si phase jub jubal jubbanti la ñu toll lu ci waay yor te moomoo ko moom par force di nga ko delloo si ndax la bien euh, nu mu tudd euh, tout ce qui appartient au peuple doit revenir au peuple ça moom man moom maman lenn rek moom ma metti sangu sutura bi sutur tur yi ñuy topp di nëbb daal moo ma metti moom wax dëgg yàlla Mhm. en tout cas attendons voir comme que c'est le début tey la mbir yi door ñu xaar euh, fan lañ ci jëm certainement dinañu am euh, li nga xamante ni moo di ñan ñoo nekk ci ginnaaw euh, yëf jëf yi nga xamante ni pardon ñu ngi koy évoquer naka noonu ñu ñëw ci ñaaxeelu ponk bi muy tour du web daal di ci ànd ak Mati Sarr fas yéene ko dooree mat yi ak réunion interministérielle bi nga xamante ni amaloon nañ ko démb jëm ci préparation rentrée scolaire vingt 2025 waaw maman moom laa doon évoqué sànq sax euh, ndax euh, réunion interministérielle bi am démb jëm ci wàllum éducation bi euh, kii di premier ministre Ousmane Sonko moom moo ko daal di amal ak yenn ci ministère yi mu concerné ku ci mel ni ministère de l' éducation ministre kii ni assainissement waaw Moustapha Guirassy mooy éducation ku ci mel ni assainissement moom itam bokkoon na ci ñi teewee ndaje bi donc